jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fi ci seen chaîne YouTube ngeen bës cloche bi bokku ci programme bi national international bi ci fulla gi ci gëm gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul l'islam amul ñaar te Seigne Touba nee bu la Yalla gërëmee amul lu lay fay lu dul ku bëgg Yalla bëgg na la ku bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na la murid yëpp doon nañ ay Baay Faal ña dëngoon bëgg aduna mel ne man di xemmem xemmem luy bâtiment ki ñes neen tiit nañ kenn ñemewut sa tëdd ci la ñaar yoon ci guddi di ko ngot ngotee lislaam ak bëgg jub ak bëgg laa bëgg rek nga am ndam boo liggéey daal dañoo bëgg ñun sa werekaan yi nan loo doy sëkk ci seede balaa sëñ bi agsi ci yow na xam ne koo jamonoon teen def nga ko ko te sa bëgg sëñ Tuubaa la ko may junni at ñi ngi koy bagaan bu dee am nañ dara ci mu yi bu murid yi amee dara ci Cheikh Ahmadou Bamba yàllaa ngi ñuy dégg atiib ba raqib ba ñuy seede ñoom nañ dem ca yàlla xamal ko ne ko murid yee dagaan téeméeri at ya ñiin fukki ca mam assawaalo signé nañ ñun ñëpp nangu nañ ci si ñu taxaa lañ ko yàlla loolu laajuñu ko kenn Serigne Touba lañ koy laaj Mbakke yàlla na nga yàgg tëwér suñu xol sedd na lool